moom Vladimir Putin, nek president bu Russie dat na ni jot ay xibar yuy wax que nak mom mi di Vladimir Putin eh, warna set ci ki di president Basiru jomay jaxar fay mu nek ak gan go xamne dal dina ko gane suñu president bi di basiru jomay jaxar fay mu nek nak mbir mu ama am solo lu ne mel nak dat biñu japp jàpp nak mom Vladimir Putin, dina ñew ci réewum senegal ngir set ci ki di president Basiru jomay jaxar fay mu ngi nekk le 20 mai le 20 mai bi nga xam ne nag si la ñu jëm mu nekk nag mbir mu ama am solo boo xam ne moom Vladimir Poutine nekk njiital Russie war na ko amal si réew mu Sénégal mu nar a nekk gan goo xam ne daal dina nekk gan gu ama am solo bu président ba Bassirou Diomaye Diakhar fay mu ngi niki démb premier ministre bi di Ousmane Sonko dat ne won gana ji fele sa stade marché de gala bu don dox ci garde corps ak ay sefour mu nek lu amaam solo mom president Ousmane Sonko ba mu duggé sa stade ba dal man nañ ne marché ba fa la jaara tas wala bokku équipe bu nek yakamti won na mom president Ousmane Sonko premier ministre Euh, farak ñoom mu nekk mbir mu am am solo boo xam ne ñu ngi koy commencé di ko nemmeeku mu nekk ministre boo xam ne daal dafa wàcc boppam lool tollooku mbokki sénégalais yi nga xam ne nag donte njiit la waaye teewul daal jàpp na ne mook ñoom képp yem ci réew mi tax na nag muy faral di def ay acte yu ama am solo stade ba feesoon dell ak ay nit bi nga xamee ne nag gis nañ kii di premier ministre Ousmane Sonko daal di débarquer si biir stade bi mu nekk lu leen bett nekk mbir moo xam ne am na solo te sénégalais yi na nañu rafet lu ni mel.